fi lxasanaat sayidatan lil muxsinaat mariama fox ci muuxinaat inda lazi lam yudraki mbokki téléspectateur yu mafatihul ginnaaw bu nu santaate sunu borom subhaanahu wa taala julli ci xayri xalqihi sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam ñu ngi njukkalaat naa cheikh ahmad bamba xaadim rasoul mbokk yi xam ngeen ni niñ ko baaxoo defee waxtu wu nekk ci événement yu am solo yi nga xam ni mooy xew ci yoonu murit tey jii nag xam ngeen ne noo ci dëkk bu tedd bii nga xamante ni fi la waajuru xaadim rasul yu tëdd muy poroxaan mbokk yi niñ leen ko diggee woon ci suñu plateforme ci suñu plateau yu wute yu am solo yooyu nga xam ne doon nañ ci waxtaanee soxna jaara diggal na ni leen fas yéene nañ leen a demal poroxaan lépp loo xam ne ab xew-xew la fa ñu fas yéene ànd koog yéen ci seen télévision ma fàtteel Bichri moo xam ñi nga xam ne dañuy ànd ak ñun ci YouTube bi wala ñi ànd ak ñun ci Facebook bi wala ñi ànd ak ñun ci application bi nga xamante ni ñeel na leen te nekk ci seeni i moo xam ci seeni i téléphone la wala mu nekk sax ci seeni i iPod lu ci mën a doon wala ngeen jàkkaarloog seen télévision mu fàttali bi suri fas yéene nañ lépp loo xam ne événement la buy xew fii ci Porokhane incha allahu taala danañ leen wanale ak moom mbokk yi ci sunu njëlbéenu tàmbali rek noo ngi nii di waajal ci sunu wet ngeen dégg soxna jaara yooyu nga xamante ni ñoom ñoo fas yéene amal alxuraan ju tedd ju sell jooju nga xam ni moom la ñuy jàng te nekk ne sunu wet nekk ci beneen plateau bi muy lu ama am solo xam naa ne incha allahu taala sama caméraman dina leen ko wan ngeen gis soxna jaare yi noonu ñu tàmbali liggéey bu tedd boobu nga xam ne moom la ñuy def muy njàngum mi nga xamante ni mooy njàngum alxuraan mi bokk yi loolu di lu am solo loo xam ni moom lañu fas yéene ubbee liggéey bu tedd bii nga xam ne ci lañ nekk da ci liggéeyal Serigne Touba waaye da ci liggéeyal soxna su tedd sii nga xam ne mooy waajuru xaadim rasul bi soxna jaariyatullahi Marema Bousso mbokk yi xam ngeen ni incha allahu taala ci kanam tuuti dana am ay panel yu am solo yoo xam ne danañ leen wanale ak moom muy ay panel yoo xam ni foofu lay amee ci biir ëtt soxna jaara bi noonu ma leen ko waxee woon nga xam ne lu jëm ci ay xeeti jàngale lay doon lu jëm ci xeeti xamle lay doon mu am solo lool soxna jaare ñu ngi noonu fas yéenee tàmbali li nga xamante ni mooy liggéey bi nga xam ne gis nga leen noonu téere bu tedd bi nga xam ni moom lañ leen ràññee muy alxuraanul karim ñoom moom lañ fas yéenee tàmbalee liggéey bi ubbee ko li nga xamante ni mooy ëttub soxna jaara bi te ëttub soxna jaara bi comme ni ma leen ko waxee rek ëttub soxna jaara bi di loo xam ne mooy tàmbali liggéey bi mooy taxawu liggéey bi nga xamante ni dana tax ñu xamal leen poroxaan dëgg-dëggi poroxaan ndax suñu waxee ëttub soxna jaara bi forum bu am solo bi nga xamante ni ci la ñuy jàngalee daara ji ndax initiative bu am solo boobu nga xam ne sëriñ Isaaqa Mbàkke am na ko ànd koog doomam sëriñ Cheikh Fatma Mbàkke nga xam ne ñoom ñëpp nag ni ma ko waxee ginnaaw buñ ci amee ndigalul ki nga xam ne mooy Cheikh Mamadul Muntaqa ñu fas yéene nag forom bi fexe ba indi ko ci ëttub jumaa ji nga xam ne lépp lu jëm ci jàngale wala lépp lu jëm ci wane daara ju tedd ji nga xamante ni mooy daaray poroxaan ak maam jaara yi nga xamante ni ñoo fa nekk liggéey boobu bépp ak na muy demee ak la jëm ci seenum njàng ak seenu taxaw loolu lépp fii lañ koy jàngalee ci barab bu tedd bi nga xam ni moom lañ tudde ëttub soxna jaara mbokk yi tey ji dana am conférence bu am solo yoo xam ne dana fa am te waa mbooloo mi nga xam ne moom la ñu wax nafsi wa diini nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoo sotoo ci sëriñ Basiiru Mbàkke ñoom ñoo fas yéene amal waxtaan woowu waaye niñ ko waxee léegi sëriñ Xaadim Mbàkke moom sëriñ Muntaxa fa yéene amal waxtaan muy ay thèmes yu am solo waaye ñu ngi fi séentoot ki nga xamante ni mooy sëriñ Isaaqa Mbàkke nga xam ne moo fas yéene ñëw ñaanal mbooloo mi su ko defee euh, première édition bu tay bi day daal di jeex ba suba waat ak jàmm mbokk yi dëkk bu tedd bii nu nekk mooy Poroxaan dëkk bu tedd bii nu nekk mooy dëkk bi nga xam ni fi la waajuru Cheikhul Xadim bi soxna Jaara Buso radiyallahu taala anha tëdd muy barab boo xam ni barab bu bari ay jeexital la ci yoonu murit di barab bu bari ay jeexital di barab boo xam ni yaakaar naa ne doy na sëkk rek ñu ni waajuru xaadim rasuul wi muy soxna jaara fi la tëdd di barab boo xam ni euh, barab bu bari ay kemaan la di barab boo xam ni barab bu bari ay histoire la di barab boo xam ne moom képp lañ xam ci barab boo xam ni Serigne Touba moo waxal boppam ni ku ñëw fekk ma fi wala boo fi nee jàng mooy boo fi yàggee dara danaa la fi fekk mbokk yi loolu gis nan ne lenn ci njabootu sëriñ Touba gi muy ku mel ni Cheikh Mamadou Lamine Bara yàlla yàlla yokk ay leeram taas na ci barkeem bokk na ci ñi nga xamante ne firndeel nañ loolu muy barab boo xam ne saa su nekkee ni ma koy waxee ginnaaw buñ ko waxtaanee wax nit ñi histoire bi nga xamante ne mooy histoire dëkk bu tedd bii di Porokhane ndax buñ fàtte ni. dëkk bii Maam Mor Anta moo fi àndan ak soxna jaara ñu fi jaamu yàlla waaye diggante bu gàtt la fi am wuy ji boroomam muy soxna soo xam ne yaakaar naa ni ma koy faral di waxee histoire du ko fàtte mukk ndax li tax mooy ay jëfam moo na fal wa guddul woon waaye bokk na ci ñi nga xam ne tey mën nañoo firi aay boobu suñu borom di wax ni am na ñoo xam ne dañoo faatu waaye faatuwuñu ñooy dund seeni bàmmeel mooy ñan mooy ñi nga xam ne naka jekk dañuy jëf-jëf ju waaye bàyyi xel ni àdduna gi kenn dëkku fi waaye àllaaxira mooy kër gi nga xam ne fa la sun borom di fayee soxna jaara nag xam ngeen ni doy na sëkk rek waxtaane ko waajuram mu tedd woowu nga xam ne mooy maam asawaalo mbàkke nga xam ni jigéen ju sell la wan jigéen la ju aman xam-xam waaye jigéen la wan joo xam ni sell gi ak xam-xam bi da ko boole wan di jàngale yor daara doy na sëkk rek ci bari xam-xamu maam asawaalo moo jàngal soxna jaara soxna jaara xam ngeen ne ko géeju la woon ndax histoire siiwal na ni ci at yu néewam ci la mokkal alxuraan di ko bind te du ko xool waaye di ko tari te du ko geestu loolu nag defe naa ne kon ki la jàngal moo mën a def ci yow loolu waaye ñu fàttali bokk yi ni maam astawaalo mii ñuy waxtaane muy waajuru soxna jaara nga xam ni ma koy waxee soxna jaara daa bokk ci mbàkke ak mbusoo bi ndax ki nga xamante ni mooy maam Mor Anta Sali ak ki nga xam ne mooy maam Asta ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk benn maam muy maam Maharam waaye mbokk yi mu yar soxna Anta Ndiaye Mbàkke borom gis-gis bu réy boobu jigéen ju sell jooju jigéen jooju nga xam ne naka jekk daa ma sa woo lu baax ndax yittewoo lu baax mënta weesu nga gis nit ku baax nit dëkkoo la nga yéene ko loola nga yéene koo ko lu baax loola wax ko ne ko gis naa koo xam ne kat xam naa ne soo ko jëlee dana baax lool ci yow muy kan muy soxna jaariyatu bu Bousso kon li ma bëgg a jàngale foofu mooy kon ñëw kër Mame Mor Anta Sali ci soxna jaara mi ngi jaara ci soxna su tedd su nga xam ni dañ ko tudde waajuram wala dañ ko moo aw waajuram dañoo bokk kuñ leen tudde muy maam Assa Ndiaye Mbacke dañoo bokk kuñ leen tudde ba pare maam Assa Waalo yor ko yor ko ba mu dem kër mu gis soxna jaara ci jikkoom ju rafet ndax maam Assa mi ko yar da leen daan yar ci bëgg lu baax daan leen yar ci jël seen bët teg ko ci gaa yu baax yi waaye daan leen yar ci saa su nekk ci naafila lu mel ni teel leen a xamal lan mooy julli lu mel ni teel leen a xamal lan mooy seen faratay jëmm waaye teel leen a xemmem loo gaa yi baax yi nga xam ne nag jekk ñoom foofa lañ mas a teg seen bët foofu lañ mas a wiise foofa lañ mas a xool loola waral soxna maam Anta Ndiaye Mbacke fexe ba soxna jaaram yi nga xam ni moom la barab bii nekk suñ ginnaaw mu fexe ba jël ko wax ko borom këram muy Mamour Anta mu dëkkook moom ba am ca naa si Ahmad Bamba Xaadim Rasul waaye am ca Mamoor Jaara magi mag waaye am ca sëriñ Habibullahi loola mbokk yi liñ ciy dégge mooy danañ gis ni ndekete lu baax nit da ko war a wut waaye nit da ko war a yittewoo waaye nitit daa war a xam lu baax loola naka lay def ba mën caa jot anan la yu maye lu baax mooy xam mbir mi baax na baax na lool waaye li gën a am solo mooy ginnaaw boo ko xamee nga def yitte ci fas yéene lu baax loolu nga am ko soxna jaara radiyallahu taala anha ginnaaw boo xamante ni maam Anta Njaay am na xemmam teefu mu ñëw bokk moom kër maam Mor Anta Sali wax nañ ni keroog bi muy dem kër sunuy nopp daa xas mooy dafa dogu mbokk yi xam ngeen ni pas-pas ak dogu bare na lu nit di am loo xam ne loolu moo ko may ndax yonent bi sallallahu alayhi wa day wax ni inna al umuura kullaha fi l aqaidi maanaam mbir yëpp mi ngi nekk ci pas-pas moo tax Cheikh al Xadim radiallahu taala anhu daan na bare lu muy ñaan pas-pas lu bare bare boo demee ci xasida ak bi Bichri da ngay dégg muy wax ni wajal xaqaidi munawwaratin wajal bihi kulli shaqiratin kon pas-pas bu leer dafa bokk ci li nga xam ne dafay dimbali doomu aadama waaye dafa mel ni pas-pas nit ki su ko amee lii tax mu mën a am jariñu ci pas-pas boobu mooy mu am li ñuy wax al azmu mooy faaw nga dogu nag ndax dogu mooy tax mbir mi nga bëgg nga mën koo am te mbokk yi xam ngeen ni dogu buñ ko waxee mooy yitte yitte nag dafa naa ne day sart wala day yoon wi nga xamante ni wala day jumtukaay bi nga xamante ni yoonu murit ci la sosu ndax buñ fàtte ni kii nga xamante ni moom la soxna jaara meññ mu cheikhul xadim bi mu àndee gaayam yooyu dem na ba yàgg mu wax ni gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa salaam mu wax ma ne yaral sa gaay ci yitte yitte nag bu ñu ko waxee dëgg-dëgg danañ gis ne yitte joojee nag nga xam ne ci la tàggat boppam moom soxna jaara ba loola rogalaat ba nekk ci cheikhul xadim loola moo fonda yoonu murit mbokk yi jan yitte la soxna jaara aman radiallahu taala soo soxna jaaree bi mu jógee li mu njëkk a def mooy xool ni dëkk bi moo jëm ca sunu borom subhaanahu wa taala waaye yoon wi fa jëm mu ngi nii mu tege ca ana nu ca tegee mooy dafa keroog bi muy dogu dafa wax ni daa ubbi alquraanu karim mooy bi ko tegee mu war a dem kër wax ni bu du woon aaya bii nga xam ne moom laa janoon danaa wax ni fa ma jëm danaa fa jur ab yonant wante dogu naa ne fa ma jëm danaa fa am koo xam ni ñëpp danañ ko dégg ñëpp danañ ko xam loolu mooy azmu kon moom am na lu ko tax a jóg li ko tax a jóg mooy bi mu ñëwee bi mu jógee dafa wax ni lii moom a tax a jóg te mooy am ci kër Maam Mor nit ku baax am fi koo xam ne tey ab yonent dootul wàcc waaye fuñ ko tuddee rek xel yëpp dem ci sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi yaakaar naa loolu am na ko mooy kan mooy xaadimu rasul mooy kan mooy ki ko waxal ni yaa umma ruuxil maaliki yaa umma jaalil xaaliki imnuki laabi xaaliki indal alil mumaziki kooku mooy cheikhul xadim kon kooku lafa am mbokk yi nu gis ni bokk na ci jikko yi nga xamante ni soxna jaara moom la ràngoo wan ba mën a jaar ci yoonam woowu ba nga xam ni la mu bëgg lépp dana ko am mooy daa boole woon xëy ak gont waaye daa boole woon kii nga xamante ni moom la ko sunu borom subhaanahu wa taala boole lan muy kan muy cheikhul xadim muy muy Mamor Anta Sali fu mu toll da daan ko topp ay ndigalam waaye fexe ba du ko séen ci ay tereem waaye li muy topp topp borom këram mësta jalgati mukk lu dox digganteem ak boromam mooy kon noonu ko sëñ Basiiru waxee soxna jaara jigéen ju sell la wan jigéen ju dëggu woon ku daan bari ay julli la ku daan bari lu muy woor la ku daan bari lu muy saraxe la ku daan topp ndigali boromam la waaye ku daan topp ndigali borom këram la waaye daan na yar ak njabootam ci bëgg yàlla ak namu yàlla waaye daan na leen yar ci li nga xam ni mooy ak sell noonu la ko sëriñ Basiir waxee ci Minanu Baaxil Xaddiim te yaakaar naa ni doy na sëkk rek ci li nga xamante ni mënees na ko bàkkoo tey si liggéey bu tedd boobu mooy li soxna jaare am tey muy liggéey bu tedd bu am solo boobu nga xam ni tey kenn du dugg ci dëkk bi te tuddoo sëriñ Moustapha Bassirou waaye tuddoo sëriñ Bassirou waajuram mu tedd wa mbokk yi xam naa ne bara ma sori rek euh, mbokk mi yaakaar naa ne ñun ñëpp bokk nañ ko miin ci liggéey bii nga xamante ne mooy ëtt soxna jaara waxtu wu nekk mu yor micro central bi dafa def liggéey bu am solo kon dama koy jox mu nuyoog mbokki téléspectateurs yi su ko defee ñu door a dugg ak moom nag ci waxtaan ak moom ci li nga xamante ni mooy initiative bu am solo bii nga xam ni dafay wane liggéey bu tedd bii nga xam ni mooy daaray soxna jaara ji te mooy forom bi nga xam ni mbokki ëtt soxna jaara bi dañoo ànd ak mbooleem mbokk yëpp di ko amal fii eh, ci péncum poroxaan bi kon ma bàyyi la rek nga nuyoo bokk yi incha allahu taala ñu door a dugg ci waxtaan wi euh, aoudu billahi min ashaytan irajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa xadim euh, salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu seen mbokk Muxtaar Seck la di kenn ci ñiy taxawu ëtt soxna jaara ci kilifteefu sëriñ Muntaxa Mbàkke ak ci saytuk sëriñ Isaaq Mbàkke waaye di doon ci teewaayu sëñ Cheikh Fatma Mbàkke ñu ay at nag ñuy nekk ci seen wet di jàpp ci liggéey bi programme bi nag ren niñ ko tërale rek mooy euh, xanaa lépp loo xam ne day jëmale liggéey bi ci kanam ñu di ko waxtaane waaye tey ci àllarba ji dañ ko ubbee njàngum alquranul karim moo xam ne soxna jaara yi jàngoon ba wàcc ñoom ñoo koy amal tam moom lañ tàmbali nii ci jamono ji wax ak yéen euh, suñ ci jógee ci kanam tuuti euh, danañ jox danañ def benn film projection boo xam ne day feeñal liggéey bi ak a fësal activités yi nga xam ne daara ji dana ko def ci wàllu woowu rawatina lu mel ne parrainage bi nga xamante ne mooy tax mbokki taalibe yi mën a jël seen alal di ko def ci yoonu lislaam ci daara ji bu ñu ci loolu euh, danañ joxit kuréel bi ñuy wax ahlu minan ñuy ñoo xam ne dañuy yëngu ci mbirum xasida yi di ñu am solo ñu ñu ñu yàgg ci waar wi euh, danañ fi jàng suñ ca jógee it tout tànk yi xam ñoo ne ca daara ja danañ leen fi indi ñoom it ñu am lu ñu wane fi seen njàng toll suñ ca jógee it buñ demee ba ay vingt et une allah am na benn panel bu am solo boo xam ne dana fi am sëriñ Cheikh Khadim Mbacke mu sëriñ Mountakha sëñ Basirou sëñ Abo Mbacke Basirou Mor ak euh, sëriñ Khalil Mbacke mu sëñ Moustapha Habsa ak yeneen i borom xam-xam danañ ci def ay intervention ci Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba ni mu nekkee njiit waaye ni mu nekkee royuwaay ok jërëjëf macha allah yaakaar naa ni mbokk yi daal dina ni xam tey kon li nga xamante ne mooy programme bi nga xam ne moo fa yéene xew fii tey ci ëttu soxna jaara bi eh, te muy la am solo ginnaaw boo xamante ni jëkkee nañ ko ci njàngum alxuraan ba noonu nga ñu ko indee ba ci panel bu am solo boobu fii mu jàmm ngi santaat bu baax a baax di gërëm di la ñaanal suñu borom defal la tawféex ak taysir di ñaanal mboolem mbokk yi nga xamante ni ñooy seetaan sunu télévision ma fatul bisri suñu borom gën leen a may jàmm bu baax baax mbokk yi ni ñu ko waxee rek xam ngeen ni nag suñu yitte saa su mooy fas yéene lépp loo xamante ni mi ngi xew fii ci Porokhane ñu fexe ba loola ñu wanale leen ak moom te muy loo xamante ne yaakaar naa ne dana doon seen bànneex ndax saa su ne niñ koy waxee rek xam ngeen ni sunu yitte saa su ne mooy lépp loo xamante ni sori na leen rawatina ñi nga xamante ni yàlla dogalan na ñu bëgg a ñëw ci barab bu tedd bii nga xamante ni mooy Porokhane yàlla dogal mënuñu fee ñëw ndax sori ñu fexe ba euh, jigéele leen ak poroxaan ndax mbokk yi ni ma ko waxee yaakaar naa su ngeen gestoo di ngeen gis barab bu tedd boobu nga xamante ni mooy poroxaan muy lu ama am solo nga xamante ne yaakaar naa lu ngeen sori soreet samay caméraman ñu ngi leen koy wan ba jigéele leen ak moom muy lu ama am solo loo xam ni yaakaar naa noonu ngeen ko gisee rek ñu ngi ànd ak yéen euh, di ko dund mbokk yi gis ngeen ambiance bu am solo boobu nga xam ne moom nit ñi fenn fu nekk bàyyikoo nañ fa di ñëw ndax li tax mooy kenn ku ne di fi wut si li nga xamante ni mag ñu tedd ñu baax ñooñee moom lañ doon wut si fii ci Poroxaan ndax xam ngeen ni euh, euh, barab bii di Poroxaan wax nañ ni barab la boo xam ni euh, barab bu yàgg la ku ñu wax Serigne Thierno Sarr wax nañ ni defar na ko ginnaaw ba ku ñuy wax Serigne Babacar jabu moom tabax na fi tabaxu ban nga xam ni loolu lépp li ko waral mooy. taxawu gu ñuy taxawu barab bu tedd bi ginnaaw ba it sëriñ Basiiru Mbàkke euh, daal di koy bardaas ak seng bardaas xam ngeen ni ay seng lañ koy defee ak ay dénk muy lu ama am solo loo xam ni euh, sëriñ Basiiru moom la fi jëkk a def waaye wax nañ ni sëriñ Basiiru daal di fi mool lu bëree bëri ginnaaw bi la wàcc ab liggéey muy loo xamante ni ci dogalub sunu borom la subhaanahu wa taala muy 1966 sëriñ euh, Moustapha Basiiru doomam ju tedd ji moo ko tabax defar ko ba mu dëppoo ak jamono loola di lu ama am solo euh, euh, ndax dafa waxan ni bu defaree barab bi ba pare kat dana fi defaral maamam daara joo xam ni daara jooju wax naa leen ni moo jur gone yii ñu leen doon wan léegi muy soxna jaara yi nga xam ni kaamil bii ñuy jàng ñoom ñoo ko jàng njàngin woo xam ne njàngin woo ama am solo la léegi te loolu kon firndeel na ni kon Serigne Moustapha Bassirou gis-gis bu rëy boobu mu aman ci bu ma tabaxee barab bi ba pare kat sama maam danaa ko fi defal kër goo xam ni 1500 personnes ay taalibe danañ fi mën a dëkk di fi nekk loola di lu am solo loo xam ni euh, yaakaar naa tey jii ku ñëw euh, danga ko mën a gis waaye Sëñ Tuubaa Basiir yëmul ci loolu yokk ndox mi waaye indi fi li nga xam ne mooy courant bi waaye fexe ba dëkk bi doon dëkk boo xam ne dëkk bu am titre foncier waaye ci loolu mu amoon yéene ju rëy yéene ji mu aman mooy dafa waxaan ni sama yéene mooy poroxaan mel ni Touba poroxaan mbokk yi tey defe naa ne mel na ni Touba ndax li tax. mooy lépp lu Touba di am fexe nañ ba Porokhane am ko loola defe naa ni euh, liggéey bu rëy rëy la boo xam ni sëriñ Moussa Bassirou bi mu fi nekkee ba yàlla dogal mu jóge fi dem di yàlla jég boromam euh, sëriñ Mountakha moom it jël liggéey booba gàdd ko def ci loo xam ne tey yaakaar naa ni lu kawe kawe njortu la ndax defe naa ni noonu ñu ko waxee bi sëñ Moustapha Bassirou wàcce ab liggéey sëñ Mountakha yor li nga xamante ne mooy liggéeyu sëriñ Touba bi. yor liggéey yor liggéeyub sëñ Moustapha liggéeyub sëriñ Bassirou bi yaakaar naa ne yóbbu na ko foo xam ne fu kawee kawela ba tey ji yàlla dogal nag mu boole liggéey boobu nga xam ne mooy liggéeyub sëriñ Moustapha Bassirou bi mooy liggéeyub bi sëñ Moustapha Bassirou yoroon te yoroon ko sëriñ Bassirou waaye mu boole ko liggéey bi nga xamante ni tey ah kii nga xamante ni nag yàlla dogal na moo fi nekkal sëñ Tuubaa di sëñ Muntaxa yàlla dogal na liggéey yëpp yooyu yëpp gàddu nekk ci wetam loola mbokk yi di lu am solo waaye mu jiital ci ki nga xamante ne mooy sëriñ Ishaq Mbàkke nga xam ne bi mu ñëwee rek daaray soxna jaar yooyu nga xam ne sëñ Saa Basiru gis-gis bi mu aman mooy so maam soxna jaarakat bu fi nekkan xam naa ne bépp soxna jaara bu ko tuddee dana la jël andi la ci wetam jàngal la yar la waaye jàngal la liggéeyub jigéen mu ne kon ñooña nañ leen jël bañ leen jëleet mu cay def alalam di ànd ak daayira yi di ko ci def nga xam ne ba nëgëni si ku mel ni Baye Alla Seen ak mag ñooñu nga xam ne ñoo ànd nag moom ku mel ne Serigne Modou Gueye parcelle ak yeneen mbokki taalib yi nga xam ne ñoo doon seq liggéey boobu wala ak ku mel ne ki nga xamante ne tey mooy euh, soxna Ayda Ndiaye Badalo nga xam ne kenn dootul wax poroxaan mukk te tuddoo turam mu tedd woowu tuddoo liggéeyam bu rëy boobu waaye fàttaliwoo jëf ju ji nga xam ni daan na ko def ci daara ji nga xam ne mooy daara soxna jaara mbokk yi ñu ànd di liggéeyal sëñ Touba ba nga xamante ni sëñ Isaaqa mi may wax am na moomit it xelum fas yéene nag amal li nga xamante ni mooy prénance mooy kenn ku ne bés bu ne am soxna jaara nga ko jox téeméer bu weeru jotee mu ñetti junni loola dana waral yeneen soxna jaar yi nga xamante ni ñoo fi nekk war a dugg ñoomit ñu mën a daal di dugg ci li nga xamante mooy daara soxna jaara